mbokk mi ala kulli gént géej am na ay tegtal yu am solo yu mat a bàyyi xel kon képp koo xam ni gént rek moo yittee mën naa jël numéro bi mu envoyé ci géntam 78 443 75 27 ku am gént mën nga ci envoyé message vocal saa buñ ko dégloo nañ la tontu ba tey tamit ki nga xam ne daa bëgg seet wala listixaar bu ko neexee mën naa woote wala am jafe-jafe ci wàllum tawat moo xam émeute wala ndoxo siti wala ku sëy lu yàgg amul doom moo xam góor la walla jigéen incha allahu rabbi su ko neexee man naa woote ci numéro bi ala xaal gént géej nekk na ci gént yi am solo ci doomu aadama bi waaye gént yi mat a bàyyi xel ki nga xam ne daa gént di dox ci kaw géej loolu yitte ju kawe joo xam ne mu ngi koy sàkku incha allah dina ci jot ba tey gént nekk di lap ci biir géej moom naqar la jafe-jafe la gàllankoor la ay xat-xat la yoo xam ni nit ki dana jànkonte ak moom ba tey tamit jàpp ay jën ci biir géej loolu moom aaja ju faju la bu doon dangay sàkku dara incha allahu rabbi mën naa jàppandi te doo ci am benn gàllankoor walla ngay wut dara incha allah rabbi sa aajo dana faju ala kulli xaal géej tamit day tegtale ba tey kilifa àddina moo xam gu diine la walla kilifa goo xam ne daa jiite lu jëm ci wàllum àddina goo xam ne day am njariñ lool nga gént gis géej ba tey tamit gént géej day tegtale li nga xamante ni adina kon genti geej ci genti am solo yu mata baye xel la yu bari njariñ la ala kulli hal ki nga xamne da genti di tank ci geej gi di naan koku bu doon day xëccoo dara wala may wut place wala mu nekk di am lu muy wut inshallah rabbi man na ci jot te du am ben galankor ala xaal su fekkente ni nag danga gént gis ci biir géej koo xam ne daa faatu mu daal di lakk loolu moom njàqare la ki nga xam ne moo faatu ay mbokkam lañ ko ñaanal te sàkkul ko sarax defal ko ay fiddaawu ñaanal ko njéggal suñ boroom jéggal ko ba tey tamit ki nga xam ne daa gént géej gi soppaliku deret loolu moom fitna la natt la boo xam ne dana ñëw ci ay mbooloo yu baree bari ba tey tamit gént duusi géej gi di walwali dem ba dem ci kër yi di ko yàq wala di gàllankoor ci nit ñi lu baree bari loolu tamit fitna la fitna la nattu la jafe-jafe la boo xam ne mbooloo mën nañoo ànd di ko dundandoo eh, ala kulli xaal ba tey tamit eh, gis géej goo xam ne du siyaat kon géej gi walwal yi moom it eh, ba tey tamit te yàqut dara loolu wërsëg la boo xam ne mën naa dikkal ki nga xam ne moo ko gis ala kulli xaal ba tey tamit gént géej bari na ay tegtal ak ay yoo xam ne ay njariñ la yu mata bàyyi xel kon géej gént duus yi yàqut dara wala mu yàq dara boobu fitna la kon gént géej euh, tegtal yooyu ñoo ci ëpp solo tegtal yooyu ñoo ci am ñoo ci gën a mat a bàyyi xel kon képp koo xam ne gént na géej na bàyyi xel xeeti gént yi nga xam ne moo ci